Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Charo Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. suis beaucoup Sénégal par le 27 février 2022 euh, bés ni 27 décembre 2022 le président de la République Tahoun jëm a mi impact terre bi euh, dina topp un problème jusqu'au dernier cas. pour nous régler dans deux mois. Lors dina féetee ginnaaw tey Le 27 février ba instant bi may wax suñu problème ba est réglé wu ko que nous yi fu mu nekk parce que un problème ba léegi ça demeure nous nag décidé nañ jox un ultimatum à l'état du Sénégal d'ici peu duñu leen wax sax délai bu fekkee ni problème réglez avancé wul réglé wuñu suñu problème paiement vulnérabilité perte de revenus locatifs, ak aménagement terrain bi mu gaaw parce que fañ ci tolloon ba légui fa nañ toll danañ ak omission yi ba légui réglé wuñ ko dans les jours à venir dinañ gis impacté yi dañ commencé di voyager ci terre bi té décidé nañ nak ñun ñëpp ñu and di voyager ci terre bi incha ni ñi voyager ci terre bi defe naa ne du bokk la comme yenen voyage yi dinañ ko décider voyager ci terre inshallah ngir gëna mëna mën jot ay vidéo xibaar abonnel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notification